bu dee ci lu jëm ci wàllu sabon yi képp koo xam ne am nga insomnie am am naari libanais ñëw ba ci man na ma sëriñ bi man maa ngi lay ñaan tàmm nañ lu defar lu baax lu nekk rek bu ñu demee quelque temps ngeen soppi soppandi ko lii baax na baaxaay boo xam ne bu ko yàq nelaw dafa maa tëwoon ba mu jëlee savon bi di ko sangoo keroog la tàqali ko ak ñàkkaa nelaw dama ci liggéey wàlla lu jëm ci wàllu cat képp koo xam ne yaa ngi koy sangoo bu fekkee ne da am cat daf koy dindi ba mu set